donc l'oluit dafa solo am question aussi Mom la ñuy ci fiñ je moy mbirum euh, lieu de culte Manam muy ak euh, décision président né nañu ba ñu rassemblement bon rassemblement lieu de culte ci euh, loolu aussi ñëpp nang ko ñu dawal 2 mois euh dafa am ño xam ñi aussi dañuy xeyna na euh, jàpp ne seen foi bëgg nañ ko exercer mais lima bëgg a bëgg taxaw fofu té mu doon lo xam aussi dafa doon lo xam euh Sénégal daf ci wone bopam moy dafa bëri ay opinion amna ci ño xam japp nañ ne condition yi réuniragul pour ñu ubbi sen juma amna ay imam yu ko wax euh jàngu bi muy suñu mbokk chrétien yi nee nañ xëy dañuy xaar ba ab dir ba gëna am

kon diversité bobu aussi bu amé euh warta mëna tax ñu naan dañuy tek masque ba de côté déedéet ñi nga xamné dañu ubi sax dañ né dañu wara ñëw ak masque dañu wara mëna euh manam utiliser gel dañu wara mëna fexé ba bu ñu demee aussi seen dàll am fuñu ko tek ak yu nimel ñi nga xamné ne guñu aussi japp né xeyna ñom condition conditions yi réuniragul pour que ñu ubi sen xel dalagul ci ubi ñoñu aussi dañ leen koy nangul euh jàngu bi aussi né xeyna dañuy xaar ba ca kanam

te war nañoo fexe ba ni ñuy aare suñu bopp ñu jéem a fexe nag aussi ba ci wàllu koom aussi euh, mu bañ a indi gàllankoor boo xam ne dana metti ci ñun